الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين بإحسان وسلم تسليما كثيرا يقول جل في علاه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخوة الإيمان الخطبة في xuluq al-kibr mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla subhanahu wa taala di ko dimbali ko di ko ñaanit mu jéggal ñu suñu rëcc rëcc bàkkaar ñu ngi ñaanoon yàlla subhanahu wa taala mu gindi ñu teg ñu ci yoonu jub yoonu siraatal mustaqim yoon bi nga xamante ni képp ku mu ci teg moom yàlla kooku de texe ne yàlla nañ ci yàlla teg waaye képp ku mu seetaani ci maanu déem ba nga wàcc boobu lay yoon réer amul kenn ku la mën a jubalaat wa iyaasu billah yàlla ci yàlla musal ñun seede ne amul benn buur bu yoo jàmm ku dul yàlla te ñeelu lu koy bokkaale ak kenn ñun seede ne suñu sang Muhammad alayhi salaatu wassalaam jaamam la ndawam la tànneefam la yàlla na yàlla fayal ñu ko moom ak i sahabaam ak képp ku topp ci njubam di rafetal booba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si mbokk yi ñu dénk suñu bopp leen dénk ragal yàlla ak topp ko ni mu ñu ko dénkee ci alquranul karim ci aaya bi yàlla dañu fàttali ñun ñooy kan ak lan mooy suñu wareef mu ni ee yéen nit ñi na ngeen ma ragal na ngeen ragal seen borom bi leen bind ci benn bakkan muy aadama kon yàlla suñu nasab la ñuy fàttali foofu suñu cosaan mu ni wa xalaqa minha zawjaha mu sàkk si suñu maam aadama xawa wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa mu soqi ko ci ñoom ñaar ay doomi góor ak jigéen yàlla mu ne nag wattaqu llah alladi tasaaluuna bihi wal arxam na ngeen ragal yàlla ci mbokkoo gi dox ci seen diggante ndax yéen ñëpp ay mbokk ngeen inna allaha kaana alaykum raqiba yàlla mu ngi xamal ne ñun nag lépp lu ñuy def nañu bàyyi xel ni moom mu ngi fuglu mu ngi jàkk di ñu xool ci lépp lu ñu mën a def mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillahi taala ñu ngi ko fas yéene amal ci beneen jikko bu bokkul ak jikko bi ñu xutbaa bii passé muy jikkoy yërëme arrahma jikko ji jikko la joo xamante ni dafay alagaatam muy jikkoy rëy rëy alkibru jikko joo xamante ni mooy bàkkaar bi ñu njëkk a mooyee borom bi subhanahu wa taala ca kaw asamaan te ka koo def moo nekkoon iblis laanatullahi alayhi yàlla dafa sàkk suñu maam aadama digal malaaka yi ñu sujjootal ko ñëpp sujjootal ko iblis bañ yàlla da kaa posé question ma manaaka an tasjuda lima xalaqtu bi yaday lan moo la teree yow iblis juddoo sujjootal kii nga xamante ne man maa ko sàkk ci sama loxo yi waaye yàlla moo ñu jox réponse ci li tax iblis bañ mu ni ast astakbarta aw kunta min al aalin ndax da nga rëy rëylu wala da nga bokk ci ñi nga xamante ni dañuy kawe kawe mbokk yi kon lii di rëy jikko la joo xamante ne day alagaate moom la borom bi subhanahu wa taala dégradé iblis wàcce ko ci kaw foofu jikkoy rëy yi mbokk yi lu doomu aadama bi di yëg la ci moom ci ak kawe-kawelu yëg ko ci ni moom dafa sell yëg ni moom dafa sell maanaam yëg ni moom dafa sell yëg ni moom de dafa am daraja yëg-yëg boobu muy yëg muy yëg-yëg boo xam ne bu yemoon ci boppam rek bàkkaar la waaye mënu ma tiguwaat nag bëgg nit ñi yëgal ko lool bëgg yëg nit ñi nit ñi yëg ni dafa sell moom dafa kawe moom de dafa am daraja sàngam ba ku ko ko joxul boobu dëgg sax mu meral loolu mooy rëy rëy moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ci xadis mu ni laa yadxulu ljannata man kaana fi qalbihi mithqaala darratin min kibr mu ni du dugg aljana mukk koo xamante ne toll na toll am na lu toll ni zarra lu toll ni atom ci xolam rëy nee na kooku du dugg aljana bi ma xee loolu fa qaala rajulun benn waay daal di ñokket ci mbooloo mi ni ko inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu xasana wa na'luhu xasana mu ni waaye yonent bi alayhi salaam nit dina bëgg moom di sol yëre yu rafet wala mu sol dàll yu rafet yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni ko inna allaha jamilun yuhibbul jamaal loolu du rëy rëy yàlla dafa rafet dafa bëgg lu rafet waaye moom alayhi salaatu wasalaam ci xadis bi daf ñoo définiral lan mooy rëy rëy mu ni alkibru nag lii di rëy rëy du moom mooy baturul xaq wa amtu nnaas mooy koo xam ne day bañ ku ko wax dëgg te bëgg kàddam moom muy féete kaw kàddu ñëpp bëggul mukk ku ko wax dëgg waaye moom lu mu wax bëggul kenn su ko teg mu ne loolu mooy alkibru mbokk yi yàlla subhanahu wa taala da li mu wax ci ñii rëy rëy mu ne innahu la yuhibbul mustakbirin mu ne man yàlla bëgguma ñi nga xamante ni dañuy rëy rëy ba tax na képp ku koy def sax damay woo jibril ba mu ñëw mu ne ko diw dama koo bañ ndax rëy rëylu gi muy rëy rëy jibril woo képp kuy malaayka ni la suñu boroom subhanahu wa taala nee na dafa bañ diw bañ leen ko ngir rëy rëylu gi muy rëy rëy dogal bi du yam ci malaaka yi waaye yàlla mooy jël ci dënn nit ñi def nit ñi bañ la ba ku la gisul sax lay bañ bu la déggee sax dalay bañ ndax rëy rëylu nga xamante ni moom ngay rëy rëylu wala aasubillah yàlla ci al musal moo tax yàlla waxaat ni inna allaha la yuhibbu kulla muxtaalin faxuur moom yàlla da nee na bëggul képp koo xamante ni dafay rëy rëylu di puukarewu mbokk yi lii di jikkoy rëy rëylu yonent ba alayhi salaatu wasalaam moo ni dafa bokk sax ci jikko ju gën a ñaaw mu ni bi xasabi mriin min sharrin an yaxqira axaahu muslim mu ni dafa bokk sax ci lu gën a ñaaw mooy nit ki jël moroomu nitam di ko xeeb ndax rëy rëylu dafa yóbbu nit ki ci di xeebaate di xeeb ñi nga xamante ni ay moroomu nitam lañ mu bokk na ci sabab yi nga xamante ni dafa yóbbu nit ki ci rëy bi ci jëkk mooy al ujbu mooy naw jëf jullit bi dafa war a nekk koo xamante ni ku simple la ba lépp loo xam ne da koy def lu naturel la doon ci moom mu bañ a doon koo xam ne day naw naw jëfam di bàkkoo ay jëfam lii nga xamante ni tamit ci sabab yi tax nit ki di dem ci rëy rëylu mooy alxasad mooy kiñaan ba képp koo xamante ni yàlla may na ko ak lu mu ko mën a may yow doo bëgg mukk ku tudd lool ci sa kanam borom xam-xam la bëggoo ko tudd ci kanam borom alal la bëggoo ko tudd ci kanam ca kanam kii dafa bokk ci askanu sàngam bëggoo ko tudd yow daal moom sa bopp rek ngay bëgg ñu la yëkkati ak di la di la neng nengal yii dafa bokk ci li nga xamante ni dafa bokk ci liy yóbbee nit ki ci al kibru borom xam-xam yi danga jël lii di rëy séddale ko ci ñetti xaaj te benn baaxu ci bi ci gën a bon nag mooy rëy rëylu bi doomu aadama bi di rëy rëylu ci kanamu boroomam mooy la firawna waxoon ni ana rabbukumul aala man maay seen yàlla ji gën a kawe fa axadahu llahu nakaala al axirati wal uula fa mu mujjee moom ba mu demee ba nar a tudd yàlla ca ba mu naree nag jibril moo jël suuf sakk ko ci gémmiñ bi ni kii gémmiñam bi yeexloon sax muy tudd baatu laa ilaha illa allah pour tudd mbokk yi ñaareel da ci jikko ji nga xamante ni ñaareel ci lii di al kibr mooy di rëy rëylu ci kanam yonent bi alayhi salaatu wasalaam rëy rëylu ci kanam yonent bi salallahu alayhi wa sallam mooy yow say kàddu ngay bëgg mu fexe muy nekk ci kaw kàddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu ñu la wax ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko wax nga askanale loolu feneen wala nga wala nga niroole ko leneen waaye wax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yow say kàddu ngay gën a di ngay gën a fexe mu féete kaw nga yor kàddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu dafa bokk ci rëy bi nga xamante ni mooy ñaareelu daraja bi gën a bonaat ci lii di al kibru ñetteel bi mooy bi ñu wax léegi ci définition bi mooy di rëy rëylu ci kanamu nit ñi nit ñi nga xamante ni yow ak ñoom yéen yam ci kanamu yàlla da nga xamante ne moo gën a tedd ca kanamu borom bi subhanahu wa taala mooy nga gën a ragal yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum aqulu ma tasmaun wastaghfirullah li wa lakum wa li saa'iri lmuslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وقت جنا بن سنتا تيالا سبحانه وتعالى نجول بسلم شيران تبع عليه الصلاة والسلام suñu taxawaay ñaare ba tey ci jikko ji nga xamante ni jikko juy alal doomu aadama bi la muy jikko yu rëy rëylu yàlla subhanahu wa taala mu ngi fàttali aayaat yoo xamante ni ci alquran koo xamante ni jikko ji dangaa nar a dox jëm ci ci sabab yi ñuy wax ni dafa yóbbu nit ki ci rëy rëylu mu ni saafara si mooy nga fàttali ko yow doomu aadama fi yàlla jaar ak yow laataa ngay gane ci kaw suuf borom bi subhanahu wa taala lu ñuy fàttali ñun doomu aadama yi di nit ñu sàkk ci ndox mu ñàkk solo loolu ak fàttali la ngir nit ki saay bu naree rëy rëylu rek teeralaat boppam dugg ci ruq mën a kanam xam le ni man nekkate kat ak delluwaat ginnaaw loolu bokk na ci koy saafara ci rëy rëylu mu bokk ci li koy fàttali ba du rëy rëylu mooy ni moom de bi muy gane àdduna ci kër gii di àdduna moom daa indiwul dara sax ay loxo yi neen la jël ñëpp ko teg ci déggul woon benn grade bu nekk ci moom du imam du jàngalekat du capitaine du président du lenn lu mu dégg liir dong la doon dégg kon indaale woo dara yére bañ la njëkk a solal sax xamoo woon nu mel booy faatu it di génn àdduna yére ba ngay mujjee sol dañ la koy sumbil loolu dafay doy sëkk ci doomu aadama bi mu delloo boppam ci bu naree rëy rëylu ci man askan bi ma bokk mu delloowaat boppam ci ni mu ngi koy yóbbu ci jikkoy rëy rëylu bu naree naw jëfam ci xam-xam bi mu am na xam ne xam-xam bi mu am ak pàkk la ak lay la digganteem ak boroomam ndax ki nga xamante ne ëllëg bokk na ci ñi ëpp du ma yowmal qiyaamati mooy ñi nga xam ne dañoo xam ba pare jëfewuñu li ñu xam ñooñu ëllëg yowmal qiyaamati duñ yem duma ak ñi nga xamante ni ñoom góorgóorlu woon sax ngir uti ji xam-xam bu dee kàttan fàttalikul ni yàlla bindoon na ñoo xamante ni seenu kàttan géant lañ leen doon woowee te ñun nii nga xam ne ñuy xeetu yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñooñu bu ñu ñëwaatoon tey ñun dañuy jël di leen xool ñoo xamante ne bu ñu daan tabax ci ay montagne lañ doon jël di tabax kon yow amul lenn looy réeróole ci kaw suuf ndax ci kaw suuf dong nga nekk waaye bu la boo faatoo ci suuf lañ lay delloo bu dee alal la amul ku ëppoon alal yahuud yi nga xamante ne ñoo jiitu woon xool leen Qaaruun nga xamante ne ay alalam. caabi magasin yi ay ponkal ñoo ko daan téye kooku anamu tey taxta turaab luñ ci biir suuf mbokk yi du lenn ci yi nga xam te ne yàlla moo koy maye lu yàlla di may doomu aadama te indaalewu ko ba tax na ëllëg mu ñëw taxaw di ko rëy rëyloo di ko buukare ko ci kanamu jaam ñi ba mu koy jëral ba mu koy jural mbugalu borom bi subhaanahu wa taala ak meram mbokk yi yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo ni yàlla dégradé woon iblis ci rëy-rëylam ci kaw suuf ci kaw asamaan wàccee ko ci kaw suuf noonu yowmal qiyaamati la ki doon rëy-rëylu ñëw ci kanamu borom bi nee na yowmal qiyaama yonent mu ni yàlla da koy def ba mu mel ni sànqale day wàññi créature am ba mu mel ni sànqale ci biir nit ñi ba nit ñi sax duñ ko gis ndax rëy-rëylu bu doon rëy-rëylu ci kaw suuf yàlla di ko wan ni yow fii nag moom doo fi dara mbokk yi lii di jikkoy rëy rëylu bu ne la rek jikko la joo xamante ne jikkoy iblis la ba tax mu tudd seytaanu rajim ki yàlla dàq ci yërmandeem muy loo xamante ne da lay yóbbee ci alkande fii ci kaw suuf di la yóbbe ëllëg yawmal qiyaam du manu borom bi subhanahu wa taala ngay fexe di pour saa su nekk saafara su lay génne ci jooju lay jàng te saafara si mooy ngay delloo sa bopp saa su nekk ci yàlla ci lim la sàkkee ak sa masi ëllëg yawmal qiyaamati rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا الى صراطك السوي صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام في الدنيا وسلام في الاخره وسلام مع المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى الصلاه Thank you.